la revue des titres avec Anna Sam, Tambali avec le témoin le témoin quotidien Mami Ndiaye bokk na ci lu mu jot a ci xibar euh, mu soxal ni ñu yore alalu réew mi euh, di ca xamle ni président euh, Bassirou Diomaye fay mo ngi cey woné bopam bu baax a baax yéenekaay bi dal dina dellu si ci dogal yi nga xamantene ni mom lañu ñu waxtane ci ca jotaayub conseil des ministres ak lañu ci ca teunk leneen lo xamantene ne ni yéenekaay bi dikkaat na ci moy commentaire bi ñu def ci xëtëm. bu njëkk gi sàkku ci njiitu réew mi mu fexe sàmmonteeg relation yi nga xamante ne ni moo dox diggante Sénégal ak Gambie naka noonu diggante Sénégal ak yeneen réew yi nga xamante ne ni moom moo ko wër yéenekaay bi samp na laaj si xëtam bu njëkk ngir xam lan mooy ëllëgu parti yi nga xamante ne ni mës nañoo jiite réew mi misaalu PS ñu gën ko xam ci parti socialiste ak sa parti démocratique sénégalais naka noonu APR bi fi jógee barki démboo Ndiaye. enquête yéen a kaay lu mu wax.

yéenekaay bi ne benn patiente wala bokk seen nas ndaw euh, su fa demoon ngir euh, faju ji euh, la ñu fa yàqataan ka ñu ca duut baaraamu tuuma nag mooy assistant infirmier boo xamante ne ni boo deful ndànk dinañu ko tëj lu toll ci fukki atu kaso. L'Indépendant. waaw euh, Mami Ndiaye euh, bu ñu euh, demee ci l'indépendant yéenekaay Cour des comptes IGE ak OFNAC la wax ni président Diomaye dal dinay sulli rapport yi leneen lu soxal réforme ak pexe ba justice mën a méngoo ak jamono wala bokk ñu dal di koy moderniser Elimanu jëwrin Ousmane Sonko dal dinay xamle ni ngir mu antu daañu amal ab dialogue 28 mars le 28 mai plutôt inchallah secteur public et parapublic régime Bouyesbi, une nomination directeur général PCA et secrétaire général désormais par appel à la candidature les donne. Walf Quotidien moom dafa rek daal day addu ci euh, élargissement de euh, l'assiette fiscale euh, la mu ca xamle nag mooy ni nguur gi ni nguur gi yoon ba mu kon na teggi fofé mu teg gëtëm ci lu soxal si lu soxal li nga ni rapport yu IGE Nak ak Cour des comptes président Diomaye yëkkati na li xamante ni modi di euh, euh, bi ci euh, ki fi nekkone njiti rew Macky Sall tegoon Vox Populi. Vox Populi Mami Ndiaye fësal ci xëtam bu njëkk ni président Diomaye ak gouvernement bi doon amal ñaareel bi conseil des ministres fofé ci palais de la république la mu ca réwmi mi euh, mu ngay lëñ bët anam yi nga xamantene ni ñi fi nekkon noné lañu yoré yore woon réew euh, tax mu lancé ay audit euh, fu ne ndax kat né faaw rek ñu saytu ngir xam ban situation lañu fi fekk ci lu soxal xex absent absentéisme ak tardé bi nga xamantene ni nii dañu koy faxal ci nemmeeku ci yenn ci ay entreprise kay bi né nañu roy wala bok ñu xol ci édifice bi wala bok édifice public bi euh, ñu euh, Dupe hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye ndax système de euh, pointage bi nguur gi lancé depuis daaw lañu ca tambali té ba fi ñuy addo ngeen di téwlu amuñu ak

nar doon yore deniers publics yi wala boog alalu askan wi ca gendarmerie nag démb dafa am ab xibaar bu ñenn ci askan wi doon partagé di wax ni capitaine Seydina Aline Touré mi ñu raje woon ci coowala Ousmane Sonko aji saax dañu ko rek dal day réintégré waat ca biir gendarmerie loolee nag ay ñoñam génn nañu ngir indi ci ay leeral weddi nañu ko ba mu set nee ñu loolee wérul baaxul waaw euh, ñu euh, jëli euh, ñu dem ci xibaaru tàggat yaram ak yéenekaay bi nga xamante ne ni moo di rok record ñoom nag li ñu xamle ci seen xët bu njëkk mooy ni Ligue Europa Marseille Benfica daañu daje bu 19 heures jotee mu mel ni pour joueur di Iliman Ndiaye ça passe ou ça casse. ayca jaajëfal nañ la bu baax a baax ana jaaj am na solo te leer na nañu je pense euh, dañuy euh, jàll rek ci li nga xamante ne nii moo di euh, rubrique yi laata suñu invité di ñëw rubrique bi ñuy njëkk jàll rek moo di ba tey rek ana lañ ciy àndalaat ana tey sama laal ana <laughs> hmm. la ñuy àndal ci éphéméride du jour ana waaw